الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما أما بعد mbokk julliti suñu borom subhanahu wa taala dafa yebal yonentam bi di muhammad alayhi wa salam jox ko leer jox ko ay firnde jox ko njub mu ñëw nek yërmande ñel mbollem jam ñi nek njub ñel kep ko xamni bëgg nga soobu ci yoonu njub tënku ci say ndigal borom subhanahu wa taala mom yonent bobu alayhi wa salam mu dess nek ci bir nit ñi di len bégal di len xup di len wo di len jëmale ci yàlla subhanahu wa taala di len tek ci yoon wo xamni yoon wu leer la ba noppi tamit di leen niital di leen leeral yoon woowu nga xam ne moom moo leen di yóbbu ci seen borom suñu borom subhanahu wa taala jubbantee ci yonant boobu jële nit ñi ci lëndami réer gi nekkoon daal di leen teg ci li nga xam ne mooy njubi borom bi subhanahu wa taala yàlla subhanahu wa taala defaraat diine yi nga xamante ni yonent yi indi woon nañ ko bàyyi ko fi te nit ñi yàq ko ci seen ginnaaw mu defaraat la ca yàq woon lépp ci yónni gi mu yónni muhammad alayhi salaatu wasalaam ci moom la ubbee bët yoo xam ni gumba woon na silmaxa na gisatul deug xol yo xamanteni tëju woon na mënatul woon nangu dëgg nopp yoo xamante itam fattoon na mënatul deug dëgg loolu yàlla subhanahu wa taala min ko reparer min ko defere ci yabal gim yabal yonent yàlla muhammad alayhi salatu wasalam jox ko njub jox ko leer yàlla le ci mom yónni gim ko yónni digante deug ak nen digante lu bax ak lu bon digante lu rafet ak lu ñaaw digante yon wi nga xamanteni mooy jëmale aljanna ak yoon wi nga xamne moy jëmale safara ci mom la ko yàlla subhanahu wa taala ràññatlee ràññatlee ci mom itam ña nga xam ne yàlla yi ak ñi nga xamante ne borom bi subhanahu wa taala mom yàlla diko wax ne ko yow de da ngay jubbante nit ñi di len tek ci yoon wo xamne yoon wu jubla te yoon woowu kat mooy yoonu yàlla mi nga xamne mom mom lépp lu nekk ci asaman ak suuf te ci mom la lépp di delu yàlla mom di borom jamni ñi borom bindef ni mom mo la yoni te ci yoonam ngay ngay jubbanti nit ñi di len ci tek yonent bobu yàlla subhanahu wa taala jëlewu ko fi ludul ne dafa motale ci mom xewal gi nga xamne moy xewali dine di xewalu njub bi mo waxoon ihdinas siratal mustaqim siratal siraat anama anamta alayhim ak limu mu fële ne ulaika alladina anama allahu alayhim minan was-siddiqina wash walsiddiqina walshuhadaai salihin ñi yàlla defal mbax gi nga xamne moy mbaxu njub ñom ñoy ñi gëna kawe ci jamm ñi ndax buñ dé wax xéewal imma xéewalu njub la wala xéewali yaram xéwal gi gëna mag ci xéwal yi moy xewal njub yàlla baxé xéwal nit ki defal ko njub xéwal googu yàlla mi ngi ko motalé ci yabal gi mu yabal yonnatu bi alayhi salatu salaatu la ta mu koy jël fekk na motali na ci nit ñi njub lolu dal de matal ci mom timit diine di nga xamne yàlla jox nako ko la ta ko borom bi subhanahu wa taala di jël yàlla matalal na nit ñi seen diine moy wax ji mu wax ne al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati bi mi wax ci diine ikmal la jëfëndiko baatu ikmal moy wane ne mat na mat go xamne ne lenn mënu cee yokkuwaat waaye bu dee ci xéewal gi dafa at atam la wax muy lu mu mottali loo xam ne da koo yokk ci nit ñi subhanahu wa taala jaabir ibn abdillahi al ansaari di wax ne yonente bi alayhi salatu wasalaam bu musaana taxaw di xutba di wax ak nit ñi dafay sant yàlla subhanahu wa taala bàkk ko kañ ko ginnaaw loolu mu daal di wax ne képp ku yàlla defal njub kenn mënatu koo sànq waaye képp ku yàlla sànq ci maandu teem kenn mënu koo jox njub di wax ne li nga xam ne moo gën ci wax yi mooy téere yi borom bi subhanahu wa taala waaye njub bi gën ci njub bu nit di topp mooy njubul muhammad alayhi salatu wasalaam di njubul yonentu yàlla bi alayhi salatu doon wax itam li gën a yées ci mbir yi di suñu mbir yi diine mooy loo xam ne dañ ko caa sos ndax doon na wax ne lépp lu ñu sos aw fent la te bépp fent sànkute la te sànkute du yóbbu borom dul safara xadis boobu mi ngi saxi muslim ñu ko doon tuddee xutbatul xaaja daanaka yonent bi alayhi salatu wasalaam daawul taxaw di xutba di wax ak nit ñi di leen waar lu dul ne daan na jiital ubbee waxam kàddu yi di ko répété di ko bamtu bis bu nek sahaba yi di ko dégg ci mom moo tax benn borom xam bu mag wax ne bu fekkonte ne règle bobu mu wax dan ko répété sa su nek amna luñ cey sété amna luñ ci def comme exception kon don nako léral ndax la yajuzu ta'khirul bayan an waqtil haja moy na du nek ci kanamu sahaba yi giiru dundam nan len lépp luñu fent ci diine gi sànkute la te bu ko borom topé dina ko yóbbu safara bis bu ne mu koy wax diko wax ci seen nopp bañ dégg ko nit mëna ñëwaat ci ginnaw bi waxa waxa wax ba gëm lo nit ñi ne mëna yok ci diine lo xamne sukkandiku sukkandikuwul ci njubul muhammad alayhi salatu salaam bim fi bàyyi sahaba yi ba nopi mu nek lu bax yow yaay xol koy deugal ndax yonent yàlla bi ngay gëm deugal ko wala ndax ki la wax lolou mom ngay gëm deugal ko maanaam nit ki da fay choisir ben instant nit ki da fay choisir xol kan lay deugal kan lay gëm yonent bobu alayhi salatu wasalaam mu nekkon ci njub go xamne njub gu wér la di dina ju wér don ci dox mom ak ñi nga xamne mom moom la ko yàlla tagatalon di ay saxaabaam huwa alladi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minin wa allafa bayna qulubihim ñooñu ko yàlla doon wax ci alquran te di leen bakk di wax ne yàlla moo dimbali yonentam bi ak gaa yooyu mu ko tàggatal ñu nekk ci wetam yàlla boole leen boole seeni xol ñu nekk ay mbokk yoo xam dañoo bokkoo woon ci lislaam ku ne fa nga jóge ak sa morom bokkul waaye dañoo dajaloo woon te dara dajalew leen woon dul diine gëm yonent bi alayhi salatu wasallam ak topp ko jàng ci moom diine ak jëfe ko loolu moo nekkoon seen mbir seen kaddu nekkoon genn kaddu ci jamono yooyu yonent bi alayhi salatu wasallam nekk fi di leen jàngal lislaam daawul wax kenn di génn di jaar nale wala nga jëm nenn lim daan wax ci lañ daan tënku ñoom ñëpp mu leen di jàngal lislaam ñu tënku ci loolu necc ci bi mu fi jógee bàyyi saxaaba yooyu ak njub loolu ñu continuer nekk ci njub loolu yàlla def tàggat ci ñoom ñoo xam ne ay xalifa lañ bi wute tàmbale di am ci diggante nit ñi abu bakar as siddiq jóg jël xilaafa gi ñu jaayonte ak moom jaayonte goo xam ne forcé wul kenn ëppul kenn doole li ñu war a xam mooy abou bakar bi muy taxaw ci li ñuy tuddee asaqifatu saadiya maanaam fañ taxawoon fa al ansar daje woon di bëgg a ak saad ibn muaz wala boog kenn ci saad di wax ne moom la ñuy jaayanteel mooy saad ibnu ubada du saad ibn muaz saad ibn ubada ndax saad ibn muaz fekkoon na ko faatu lu jiitu ñu wax ne dañuy jaayonte ak moom abou bakar ak omar dem fekk leen fa waxtaan ak ñoom ba ñu Abu Bakar loolu conviction la maanaam ngëm-ngëm la mais du loo xamante ni Omar wala Abu Bakar radiyallahu anhum mën naa forcer mbooloo mu toll noonu nga xam ni ragaluñu ci yàlla kenn ku mën a doon ragaluñ la ci yàlla. fu leen yonente bi alayhi salatu wasalam mës a woo ci xare wala ci jaamaarloo ñu dem ñoom ñoo dem song ji ruum ruum nekkoon ay centaine de milliers ci ay soldats ñoom ñu nekk mbooloo mu ndaw waaye mosuñu dellu ginnaaw ci dëgg Abu Bakar amul kattan gum leen forcé ne len dañuy jaayonte ak mom dañu gëm ne mo gëna yey ci diine ji ñu fo ñu jaayonte ci ak mom bi yonent yàlla bi alayhi salatu wasalaam tedde febar biñ ko laajee julli jotna daf ne jiital len Abu Bakar bi yàlla faratalé ak ci juroom ñentelu at gi munta aji Abu Bakar la yebal ne ko jiiteel julit ñi nga dem aji jox ko cër yu tol nonu ci l'islam bi sahaba yi gisee loolu xam ne kon kii cër yi ko yonent bi alayhi salatu wasalaam mësa jox mësu jox kenn ñu jiital ko ci diine ji mu jiite julliti diiru lu matul sax ñaari at problème yi fi nekkoon yépp mu wat ko ba yëf yi nekkat lu stable ginnaaw loolu Omar ibn al-Khattab ñëwaat bi Omar ñëwee gën a yokk ci yëf yi kàttan ak doole gën a stabilité gën a stabiliser nguur gi ak xilaafa gi ginnaaw loolu Ousmane ñëw ay problème tàmbali di feeñ ndax li tax problème yi di feeñ mooy cër ak dayoo bi nga xam ne Aboubacar amoon na ko ak bi Omar amoon Ousmane dese na caa yàgg te léeg-léeg nit bu la ëppee ben façon bi daraja ak maqama wutu ko day jafe wute ko day jafe ndax boko ko rek yow sak matari day feeñ ku melni Omar jóge bi fi jóge loolu mo sonal Ousmane ibn Affan te loolu mi ngi gëna a ci hadith hudhayfa ben bis Omar ibn al khattab dafa tok taxaw ci sahaba yi ne leen kan ci yéen mo fataliku li yonentou bi alayhi salatu wa don wax ci fitna yi nga xamanteni ni tamuju ala al umma mawjal al bahr fitna yi nga xamante ne dafay ñëw ci kaw xeet bi xudayfat ibn al-yaman ne ko fitna boobu loo ciy laaj ndax am na bunt bu dox sa dig ak moom yonente bi alayhi salatu wasallam neena am na bunt bu dox diggante xeetam ak fitna boobu omar ibn al-xataab xool xudayfa mi nga xam ne moo daan faral di yittewoo xadis yooyu ba mu yàgg mu ne ko bunt boobu bis bu fitna yi di ñëw day toj dañ koy dajji wala ndax day tiijeeku xudayfa ne ko bunt bi dañ koy dajji omar ibn al ne ko bis buñ ko dajjee li muy tekki mooy kon dootul tëju ginnaaw bi bi xudayfa génnee taalibeem yi daan ànd ak moom di jàng ci moom xam-xam daw dab ko ne ko ndax omar ibn alxataab bi ngay wax ak moom ci wax ji xam na lan kan mooy buntu boobu kan mooy représenté buntu boobu ci xeetu lislaam mu ne moo leen ko gën a xam leer na ko nañ ni mu xàmmee diggante guddi ak bëccëg noonu la ko xàmmee xam na ni moom mooy buntu bi moom la yonentu bi alayhi salaam doon junj ci buntu bi muy ray gi ñuy ray omar ibn alxataab bi ñu ko faatee ci la fitna yi tàmbale ci xeet bi fitna yooyu moo faat osman ibn affan ci 35e année ci gàddaayu yonent bi alayhi salatu salaam ali ibn abi talib bi mu itam fitna yooyu bàyyiwu ko xilaafaam gi xilaafaam gi xilaafaam gi daanaka ci lu manqué juróom benni at moom itam ñu faat ko alxasan ñëw gis fitna li bëri na di doomam gis ne fitna yi bëri na mu dem tàllal loxo muawiya ne ko jëlal daal di jaayante ak moom jébbal ko yëf yi ne rakkam yi mu àndaloon yépp jaayonteele nag moom ñu jaayanteek moom loolu moo indi jële mbir mi ci khilafatu nubuwa bi yonente bi alayhi salatu wasallam ci hadithu safina ne fanweeri at la ci la jóge ci khilafatu nubuwa dem ci mulk muy nguur gi nga xam mi ngi tambale ci muawiya ibn abi sufyan bi nga xam sahabi la bu bokkoon ci sahabatu rasulillahi sallallahu alayhi wasallam waye gis nga lol non bu fekkante ne setlu nga ko da nga gis ne ci lu jitu julit ñi seen kàddu ben la won bi fi sahaba yi nekké li leen yonente bi alayhi salatu wasallam jàngaloon loolu lañ doon continuer di jàngal nit ñi biñ demee ba ci lu mujj ci lañ tàmbali di dégg ci lu sori capitalu l'islam bi ndax coow li daan am yépp ak wax yu bari yu ñu daan wax ci diine dafa daan sori Madina ndax Madina fa la borom xam-xam ak kàngaami julliti ci jamono yooyu nekkoon ci jamono Ousmane la nit ñi tàmbali di génn Madina ndax Omar radiyallahu anhu daf doon def magi saxaaba yëpp daf leen téye woon Madina daaw leen nangoo bàyyi ñu génn ku ci amul ngant lu tax nga génn du la bàyyi nga génn bi fi Omar jógee ci la gars yi commencé di génn ñenn ñi dem côté Irak di fa toog. am ci ñoo xamante ne dem côté Égypte waaye ci jamono yu mujj yi ci lañ dégg ay wax yu jóge Irak Basra di wax ne ndogal amul yàlla dogalul dara jamono yu fekk mel ne Omar Abdullah ibn Omar mi ngi dund mu weddi loolu dàq ko wane ne lu wérul la fekk boobu ay xalaat ak ay wax yu bees ñi ngi tàmbali di sosu ci lislaam bi fi saxaaba yi di jóge ci la nga gis commencé ay xalaatin ak ay waxin yu bees ak ay paspas yu bees ak ay mbir yu ne nit ñu commencé di ko ubbi ci wàllu diine di ci soobu mu nekk loo xamante ni seytaane ci la leen jaarale ba yàq leen seen diine xàjjale leen def leen ay kuréel yoo xamante ni yu wuute lañ ku nekk ak la nga nekk ak la sa moroom nekk bokkul loola yàq lu bari ci seen diine nga gis ne li seytaane gën a jëfandikoo rek mooy néew xam-xam lu xam-xam di gën a néew ci nit ñi ñuy gën a sori leer googu yàlla subhanahu wa taala joxoon yonentu bi alayhi salatu wasalaam nga gis fitnay réer ak di fent ak di sos ci diine ak di génn ay xalaat yu bees yu bokkul ak yu ñooña nekkoon di gën a am doole ci nit ñi nit ñi di ko gën a rafetlu di gën a jàpp lu wér la nga gis ne yonentu bi alayhi salatu wasalaam junjoon na lool ci xadisul irbat ibn saariya bi mu waaree saxaaba yi benn bis xupp leen ba ñu tiit ñu laaj ko ne ko daa mel ne da ngay tàggoo ndax doo ñu jox ndénkaane daf leen wax ne maa ngi leen di dénk téere yàlla bi dénk leen itam dégg ak topp même bu fekkente ni sax ki leen jiite da ngeen koy xepp ci askanam waaye na ngeen ko déggal na ngeen ko topp mu daal di wax ne kenn ku yàlla may ci yéen gudd fan mu dund tuuti dina gis wuute ak tàqalikoo bu bëri ci biir jullit ñi waaye na ngeen tënku ngeen delluwaat ci samam njàngale samaw yoon samaw njub fa aleykum bi sunnati la wax ak njubu ñi nga xamante ni bi ñoo ma fi wuutu nekk ci njub loolu continuer ci jiite ci nit ñi na ngeen tënku ci njub ko jàpp ngeen moy ci bu baax matt ko ak seeni dëgëj ak seeni bañ te ngeen moytu yi nga xamantene dañ ko sos ndax neena yëpp yuñ sos ak réer la lépp luñ sos ak sànkute la ni la ko yonentu yàlla bi alayhi salatu wasallam waxe ci hadith bu wér bo wax ci sonanu abi daawud ak sonanu tirmidhi wax mënut a gën a leer loolu mana yonent bi alayhi salatu wasallam ak ni mu amee yërmande ci xeetam jàkkaarloog ñoom jox leen dénkaane bu mel noonu waaye dafa mel ne comme nit ñi dégguñu ay waxam contraire sax lim wax loolu la ñuy def mooy yiñ sos la nit ñi di daw di ci sóobu lim fi bàyyi ñu koy xeex di ko jàppee ko comme loo xam ne lu anormal la problème bi nga gis ne kon li nga ci la ci la ñaax nit ñi mooy topp njubam topp sunnaam waaye mooy tundiku lépp loo xam dañ koo sos mi ngi solo ci téeram di charx usuli ahli sunna te alimaamu laalakaayi ci mag ñi xawoon jiitu la bokk ndax siècle la la 412 la kon ku yàgg la tuuti ci ñi teel a taalif ci leeral pas-pas boobu nga xam ne dañ koo tuxal jële ko ci saxaaba yi bokk na ci téere yooyu boo ca delloo da ngay gis ne ñoom dañuy soloo li ñuy wax di la ko nettali di ko jële ci saxaaba yi dañ koy soloo jële ko ci ay nit ba mu àgg ci ñoom ci anam bu wér noonu lañ koy leeralee ay téere la yoo xam ne ci la ahlu sunna di leeral seen pas-pas ña ci taalif li ñu ciy taalif ci li ñuy wax lépp ci li ñu gëm ak li ñu fas dañ koy jële ci saxaaba yi seeni kàngaam ak ñi topp ci ñoom ñi jàngee ci ak ñi jàngee ci ñoom ñoñ lañu jappé jàppee kàngaami ahli sunna kenn ku nekk dañ nan la neena nangam waye nangam joju duñ tepp tepp wax ko rek dañ nan diw momako netali diw netali ko ko diw netali ko mu ne dégg na diw mu ne nangam ak sàngam comme ni ñi nettalee hadith ci ay asaanit ay càllale yo xam wér la lolu moy bëgg njub lolu moy bëgg roy ak bëgg top topp bi alayhi salatu wasallam ak ñi nga xam mo leen yar noonu la ahlu sunnati wal jamaa di def allaalakaa ay dafa nettali jële ci abdullah abdullah ibn masud mu ne nit ki góorgóorlu ci sunna même bu dé sax lam cay def da digg doomu néna mo gën fouf ki nga xamné day dem di ray bopam ak kërti kërti di def lu mu mën ci lo xamné luñu sos la ay fente la ci diine ji néna kon bu yoboo ngeen xam lolu digg doomu ci sunna mo gën fouf nek ci lo xamné li du sunna yonnate bi alayhi salatu wasalam ay sos la ba nopi di ci ray sa bopp allaalakaay mu solowaat jële ci az-Zuhri Muhammad ibn Muslim ibn Shihab az-Zuhri bokk ci ñi gënoon a ndaw ci taabiina yi nga xam ne jot naa ci saxaaba yi doon sëriñ bi nga xam ci sëriñ yi formé al imam Malik la bokk az-Zuhri az-Zuhri wax ne al-i'tisaamu bi sunnati najaat maanaam mooy ci sunna dafay sauver nit ki mooy li ñuy faral di wax ne sunna mooy gaalug yonent yàlla nuux bi nga xam ku ragal a bu yoboo nga daal da dugg moo tax ne al-i'tisaamu bi sunnati najaatun moy ci sunna yonante bi alayhi salatu wasallam du yonam yim fi bàyyi won neena lolou ak muccu la ba legi mu solo wat jële ci asim asim di netali wax ju am solo jo xamne abul aliya da koo wax abul aliya daf ne na ngeen jàng l'islam bu ngeen ko jange ba xam ko bu len ko fi bàyyi dem di top ji lenen na ngeen top siratal mustaqim ndax mom moy deug deug l'islam te bu len jàng bàyyi fi l'islam di jëm ci seen ndeyjoor wala ngeen di jëm ci sen chamoy na ngeen tënku ci sunna yi seenub yonent alayhi salatu wasalaam te mooy yoon wi nga xamanteni ci la ay saxaabaam nekkoon mu dolli ci walladi kaana alayhi ashabuhu te li nga xamante mooy li nga xam ne ci la ay saxaabaam yi mu yar ci lañ nekkoon mooy tandiku leen bëgg-bëgg yi nga xam ne nit ñi dañ koy topp al ahwa la wax ñoom dañ daan jëfandikoo baatu hawa ak ahwa ci lépp loo xam ne nit ñi dañ koy topp ci ay gis-gis te dëppoowul ak njàngaleem yonent bi alayhi salatu wasalaam hawa lañ ko daan tuddee mu ne nag mooy tandiku leen yoon yooyu ndax dafay indi nooneel ak bañante ci diggante nit ñi lan moo indi nooneel ak bañante ak problème ci diggante julit ñi dara indiw ko lu dul biñ tàmbalee di sos ci diine lu ci bokkul bàyyi fi njàngale mi fi yonante bi alayhi salatu wasalam bàyyi ndax njàngale moomu rek moom moo mën a boole ay xol comme ni ko yàlla waxee ci waatasimu bi xablillahi jamian ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا nga gis ne foofu santaane bi yàlla santaane ci tàmbali aaya bi ne nañu mooy ci buumi yàlla nañ mooy ci téere yàlla bi ak ci diine yàlla ji te bañ a tàqali ko da cee teg fàttali leen ne ba ñu nekkagul ci njubloo la ay noon lañ woon yu daan xeex ak rayante ka euh, ku nekk di jéem a massacrer sa moroom mais bi leen yàlla defalee njub loolu ci njub loolu la seeni xol nekkee benn ñu daal di nekk ay mbokk ci lislaam loolu la lañ ci jàngee ci aaya boobu mooy wane ni jàpp ci buumu yàlla gi yore benn diine tënku ci alxuraanu yàlla ji ak sunna yonentu bi alayhi salatu salaam moom mooy indi ijtimaaul qulub mooy indi xol yi nekk benn moo tax mu daal ne yàlla fa allafa bayna qulubikum fa asbaxtum bi nicmatihi ixwaana waaye saa bu fekkee nit ñi bàyyi nañ loolu da ngay gis ay nooneel lay indi mooy li wax ne min alladina haadu fele li mu ci ne fa axadnaa mithaqahum fa nasu xadan mimma dukiru bihi fa agrayna baynahum al wal bagdaa comme ni ko yàlla subhanahu wa taala waxee ci nasaraan yi daf bi leen yàlla subhanahu wa taala jele ci ñom engagement ñu daldi sank engagement bi yàlla joxon bàyyi lu bari ci liñ leen joxon ci sen diine yàlla neena ci lañ tàmbali am ak nonel ci sen digënté moy kon sa bu nit ñi bayé njub li leen yàlla toppaloo nono mom moy daldi am ci sen digënté ay problème tàmbali di feñ tayib abul ali kon lool la wax mu daldi wax mom asim ne bi abul ali waxe lool ma dégg ko dama ko nettali al basri al basri ne ma li wax dëgg la te itam laayee na biir nit ñi mu ne ma daal di koy nettal xafsatu bint sirin muy abul hudayl xafsatu bint sirin sœur la woon ci muhammad ibn sirin jàngee ci saxaaba yi doon soxna su baax su bari woon xam-xam nee na bi ma ko nettalee mu ne ma yow lii nga wax nii ndax nettali ko muhammad ibn sirin mu ne déedéet mu ne kon demal nga nettali ko ko lii nga wax nii ne yaa ko déggee ci abul aliya alxasanul basri daan na wax naan du wér benn yoon nit ki di wax ci diine lu dul ne waxam jooju muy wax da koo booleeg jëf joo xam ne ju baax la ju dëggal ay waxam waaye tamit wax du wér te àndut ak jëf du wér te àndut ak wax ndax xam-xam mooy jiitu li nga xamante ni mooy jëf mu daal di wax itam ne wax ak jëf duñu ñu wér te àndul ak yéene joo xam ne yéene ju sell la waaye wax ak jëf ak yéene ju sell du wér li fekk nit ki dëppalewul li muy def ak sunna yonante bi alayhi salatu wasalaam loolu la alxasanul basri doon wax mu doon wax itam naan yéen waa ahlu sunna moom alxasan mi nga xam ne ci taab ci saxaaba yi la jàngee bokkoon ci kibaaru taabiina yi mu ne yéen waa ahlu sunna na ngeen yërëmante ci seen biir ndax yéen a gën a néew ci nit ñi kon bu leen di sonalante ci seen biir bu leen di jàppoo jàpp jàppante ci seen biir daan wax ne istawsu bi ahli sunnati xayran fa innahum aqallu nnaas aw fa innahum ghuraba jëfe leen lu baax li ñu leen digal ak ndénkaane yi ñu leen jox ci ahli sunna ndax ñoom dañoo néew dañoo néew ci jamono ju nekk boo leen xoolee dañuy néew ci nit ñi kon képp koo xamante ni bëgg nga dëppoo ak dëgg ci coow li nga xam ne nit ñi ñu ngi koy coow ak wute wure yi nga wute yi nga xamante ñu ngi wute ci diina yàlla ji subhanahu wa taala ku nekk di def loo mën sa kéemtalaay kattan pour démontrer na yaa nekk ci dëgg koo xamante ni bëgg ngaa dëppoog dëgg na nga góorgóorlu def sa kéemtalaay kattan ba xool njub loolu nga xam ne moom la fi yonente bi alayhi salatu wasallam bàyyi woon moo ki saxaabaam ñu woon ci laata nit ñi di sos ci diine yàlla ji dara nga dellu ci loolu nga teg ci sa tànk sa kéemtalaay kàttan ndax loolu lañ daan tuddee sunna sunna buñ ko jëfandikoo ci fiq istilaax la erreur bi ñenn ci jàngkati xam-xam yi di def moy dañuy def tak duñ ràññatle dañuy def jaxase moy amalgam digante ñaari mbir dafa am luñ tuddé istimal shar'i ak luñ tuddé istilah istimal shar'i moy bat yi nga xamné moy terme yi ñuy jëfëndiko ci wax da ngay fekk ci alquran mu jëfëndiko ko ci ay sens moy ci ay mana nga dem ci sunna mu jëfëndiko ko ci ay mana ginnaw bi borom xam-xam yi bu ñëwé di jàngat xam-xam ci ci buntu xam-xam yi lu melni fiqh mën nañoo jëfandikoo waat même baat bi nga xam ne moom lañ jëfandikoo woon fële ci alxuraan ak ci sunna ci benn maanaa ñoom ñu jëfandikoo ko ci beneen maanaa bu bokkul maanaam ñoom ci seen tëralin ak ci seen waxin ñu jëfandikoo ko ndax ñoom da ngay gis bu ñu waxee sunna liñ ci namm mooy loo xamante ni bi lislaam maa amara bi shaari aw maa talaba shaariu fi'lahu talaban ghayra jaazim mooy loo xam ne lislaam dalaa sant ne la def ko waaye def bi mu lay wax ne la def ko nekkul lu munta ñàkk feddaliw ko boo ko defee moo gën ci yow waaye boo ko defulee itam dara du la ci fekk لولو سنة بابو نونو مرتبة من مراتب اللي انتو دي الأقسام الحكم التكليفي مانا أتي تي فقه لي ديلو تي أتي تي فقه مي سنة بيغا خمنتني مم لا يوننتي تبع عليه الصلاة والسلام دونو نان عليكم بسنتي لولو موي نجوبم بيغا خمنتني تي لا نيكون بنن بير بي تي نيكات تي القرآن فك تي يالله سبحانه وتعالى يوخني سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تحويلا يالله دي وحنا سنة الله sunna yàlla jëfandikoo ko ci boppam bul fekk ne yàlla nee na baatu sunna rek dégg yonent bi ne sunna nga ne sunna sunna ne kon ñoom ñaar benn la bokkul bu nekk dañ koo jëfandikoo ci benn contexte bu bokkul ak sa morom yàlla fi mu ko jëfandikoo jëmale ko ci boppam mooy doxalinu yàlla bi nga xam ne moom lay doxal ci digganteem ak ay jaamam ci li muy dogal ci jamono ji yàlla doxalin boobu nee na du soppeeku lii nii la nii la ko yàlla di jafee képp ku ko def gis loolu mooy yàlla yebal na ay yonentam ne dem leen ngeen waar nit ñi jox leen ay firnde nit ñi weddi leen yàlla alak leen yàlla nee na loolu sama doxalin la duma ko soppi loolu la yàlla di wax ci sunnatullahi boobu muy faral di wax ci alquran mooy lii doxalinu yàlla la du soppeeku loolu amul benn rapport ak yonente bi alayhi salatu wasalam baatu sunna ni mu ko jëfandikoo moom ci njàngaleem mi ko yàlla jox te yàlla di ko tuddee ci alquran alxikma loolu noonu lu wér la lu leer la loo xam ne borom xam teel nañ koo xam tuddee ko as sunna muy njub ak njàngaleem yonente bi alayhi salatu wasalam malheureusement nag jamono ji nit ñi da ngay dégg ñuy jaxase njaxas yoo xam ni xam nga wax ngir leeral nit ñi dëgg dafa jafe dafa diis ndax day laaj nga argumenté li ngay wax dafay laaj nga leeral ko dafay laaj ci yow benn rigueur scientifique boo xam ne ki nga xam ne day jaxase moom soxlawul loolu ndax kiy jaxase moom lu mu def rek pour mën la indil ay sikki sàkka da koy def te itam ni muy tënkoo ci wax ji mu am maandute ba li muy wax lépp nekk xam-xam bu leer boo xam ne ni mu la ko waxee boo demoon ca téere yi nga xam ne téere xam-xam yu njëkk ya la nan ko fay fekkee moom loolu soxalu ko liko soxol rek moy fexe ba yow mi mu bëgg ag ci sam xel indi ci ay jiixi jaaxa ba yoonu alxuraan ak sunna bi nga bëgg top do ko top mom dina def ba dina fexe ba def lolu bu ko defé day day day jël fi dara jël fee dara jël fi dara indil lako tegal lako ne la wali naka la mëna nekké fexe rek pour rek gëlëm lolu jaxase sa xel lolu kasse moko yittel lolu nak lu yomb la malheureusement nak ñu bari tay ci wax kat yi nga xamni dañuy jema xex yoonu alxuraan ak sunna ak di indil nit ci ay sikki sàkka ci seen bopp ngir bañ koo topp du ñu bàyyi benn subaha benn lënt-lënt boo xam ne mën nañ cee indi ay jeexi jaaxa ci bopp ñi bëgg a jug laxasaayu topp yoonu alxuraan ak sunna lu dul ñu indi leen ci ay gàllankoor moo tax nit ku nekk ba yóbboo nga bàyyi ci loolu xel te itam nga xam bu baax a baax say nopp jamono ji ñu toll kan nga koy dëkk di ko déglu ak kan nga dul déglu ndax waxkat yi bari na te ñu ci bari yàlla moo xam ci lan la ñuy woote ak ci lan lañ nekk waaye woote moom nangu njubul alxuraan ak sunna daanaka coono bi ñuy daj da ngay gis nit koo xam ni li muy daj ci coono pour xeex topp yoonu alxuraan ak sunna bu doon dafa bëgg topp yoon wa sax du ko daj ci coono bu bu bëggoon topp yoonu alxuraan ak sunna sax du daj coono bu toll noonu fitna ju rëy rëy la ci jamono ju ñu toll mais nag lépp ay intérêt moo ko lal ay enjeu moo ko lal yoo xamante ni boo seetloo di nga xam ne am na yeneen mbir yu nekk ci ginnaaw yu dul rek woote pour rek jubbanti nit ñi teg leen ci njub yeneen mbir moo nekk ci ginnaaw

ci cinquième année bi ci cinquième siècle bi la faatu nekkoon andalus doon borom xam bu mag doon fóori bu mag ci xam-xamu xadis ak ci ngiru al imam malik malheureusement fii ci côté maghrib bi malik yu ne fi nekk joxuñu ko benn dayoo bi li ko waral di nga ko xam ndax moom ahlu xadis la bokkoon min ahli sunna du woon ab ashari du woon ab suufi min ahli sunna la bokk moo tax ay téeréem joxuñu ko yitte waaye ci kàngaam yi gën a xam masabu malik ci maghrib fii ci andalus mooy ci fii espagne espagne fi julliti nekkoon bokk na ci ay téeréem ak liggéey bi mu liggéey ci Muwatta Malik amul ku mës liggéey ci mazhabu Malik lu mel noonu li nga xam ne xadis yi Malik def ci al mota tuddee ko ay balaaxaat nga xam ne càllale gi ba mu àgg ci yonent bi alayhi salatu wasalam Malik da koo dog àggalew ko moo ko jël lépp jokkale ko ba mu des ñeenti xadis mu ne ñeenti xadis yi gisalu moo ko ay càllale yoo xam ne yu ma ko mën a jot jottalee la yu ma ko mën a jokkalee la liggéey ci liggéey bu rëy rëy jëlaat jëlaat téere boobu sarxaat ko ci beneen téere bu mag tuddee ko al istizkar boo fa demee xam-xami lislaam yépp ci fiq mi ngi ci téere boobu waxul rek ci mazhabu malik waaye ci kàngaami borom xam-xam yi fi jaaloon yépp seen mazhab ci fiq da koy traité di ko jàngat ci téere boobu doon fóore bu mag waaye li tax joxuñu ko yitte topp seen furu fiq yi ak yu mel noonu mooy kan mooy ibn abdul bar ibn abdul bar dafa solo ne malik dañ koo laaj ne ko ci téere boobu tul antiqa mu ne dañ koo laaj ne ko ñan ñooy ahlu sunna mu ne ahlu sunna boo leen seetee mooy ñoo xam ne amuñu benn dàkkantal bu ñu leen mën a jox di leen ko dàkkantalee amuñu feneen fu leen mën a askanale sunna rek mu ne doo mën a wax jahmi doo mën a wax qadari doo mën a wax rafidi yi mu ne doo leen mën a askanale mazhab boobu nga xam ne ku tuddoon jahm ibnu safwan moo ko sosoon daan ci wax ay wax yu doy waar ci wàllu ngëm yàlla ak ci wàllu melokaani yàlla yi yàq lu ci xalaatinu julit ñi julit ñi seen xalaatin ak fonctionnement bi fi yonent bi bàyyi woon nga xamne li la len wax ñu yam ci lolu déggé ko non topé ko noonu dañ dem ba ay jamono ay nit ñëw indi yenen xeeti xalaatin yo xamne ci walu philosophie la gëna jege yo xam dañ nan la li la nga ne lutax ñu ne li la warta nekké ni bu nekké ni lolu day am problème kon war nañ ko lijeenti xol naka lañ ko gëna ciow lu bari lolu ci jamono yoyu la sosu ku mel ne jahm am ci rôle bu reey reey bu mu ci jouer ak mu'tazila yi nga xamne bo gisé ñu bari ñu ñëwaat ginnaw bi yoon yoyu lañ top ne ci di ciow ciow lu reey bàyyi yoonu ahlus sunna bi nga xamne ci la as salafu nekkon nekkoon coow li bari loolu waaye boo ci duggee da ngay gis ne gëlëm la ak xe waaye du xam-xam mu ne doo leen mën a askanale qadar yi mooy ñi nekkoon basra di mu'tazila ak ñi qadariya yi nga xamante ne ñoo doon dàqi ndogal mu ne ahlu sunna doo leen mën a askanale askan yu mel noonu doo mën a wax rafida yi mooy rafida yi doon ŋàññi abou bakar di ŋàññi omar ibn alxataab di ŋàññi uthman di wax ne dañoo foqar ñi xilaafa gi ci yonent ci ci moom ci ali ibn abi talib waaye moom la ko yonent bi alayhi salatu wasalam joxoon tàmbali di wax wax yooyu nga xam ne wax yu yàqu la bakar nekk na fi jiite xilaafa gi ba jóge fi kenn musul taxaw ne ko maa la gën a yey ci nekk xalifa Omar ibn Ali ibn Abi Talib mi ngi fi woon musu koo wax bu ko yonente bi alayhi salatu salaam nome woon ne ko yaa koy nekk mu toog di seetaan bakar jël ko di xoole imma dafa nekk ne amul kàttan ci mën a jiite wala am na kàttan waaye daa seetaan ñaar yooyu bu ci mën a nekk wax ju rëy la wax ju garaaw la ndax bu amul kàttan lottu ci mën a nekk xalifa yàlla akub yonentam ne ko yaay nekk xalifa te mënu koo doon kon kan moo kan moo nekk ku incompétent kan mo fal kuko matewul yàlla la ak yonent bi alayhi salatu wasalaam ndax khalifa kuko man kuko mate rek am man ko don rek mokoy mokoy nek ku yor nguur rek mo meuna nek khalifa ku yorul nguur mënoo tok sa keur nan may nek khalifa te nit ñi déggaluñ la nit ñi topuñu la benen bi ci dess moy yàlla ko yonentam jox ko ko ne ko ya ko wara nek mu tok di setan ne ya ci ya ciaral te mën ko mën ko jël jëlu ko ali ibn abi talib ñakewul won nonu fayda likoy firndel moy mooy deme ba usman ibn affan jóge fi ndax umar ibn al khattab ñewna tek ko ci wetam di waxtaan ak mom mu koy jàppale ci xilaafaam ba Omar jóge fi am na problème yu amoon digganteem ak Ousmane waaye terewul bi Omar di fi jóge biñ ko jamee laata muy faatu dafa nome juróom benn nit ñi nga xam ne ñoo desoon ci al ashara al mubasharuna bil janna ne juróom benn nit yi nañ tànn ci ñoom kenn ñu jaayante ak moom biñ nekkee juróom benn ñett génnal ñett mu des Abdurahman ibn Awf ak Ousmane ak Ali ñoom ñett ñoo des Abdurahman génn ne leen yéen ñaara ci des ndax kenn dina génnal moromam ñoom ñaar ñëpp ñu noppi le fait que ali ibn abi talib nango bokk ci ñi nga omar dañ leena désigner pour ñu jaayante ci kenn rek moy wane ne kon nekkul won khalifa avant ndax bu jappone mom mo gëna gën yey ci nekk khalifa yalla ko tan yonent be ko tan du ñet du bol du nango ñukoy bolé ak jur juróomi nit ñuy tan di waxtaan ci seen biir ku ñuy fal kon du ko nangu waye da ko nangu bi abdourahman ibn awf demé def consultation populaire dugg ci sahaba yi waxtaan ak ñom ba xam kan lañu bëgg jital dafa ñëw ne ko waxtaan nak nit ñi ñetti fan gis naa ni Ousmane ibn Affan lañ bëgg a jiital kon na nga jaayonte ak moom Abdurahman ibn Awf jaayonte ak Ousmane Ali jaayonte ak Ousmane ay nit ñëwaat ginnaaw bi ne noono moom la yàlla fal moom la yonent bi fal gaa yi ñoo ko foqar ñi yan gaa ñoo ko foqar ñi wax wax yu rëy yu mel noonu di yéefaral saxaaba yi commencé naan alxuraan ji sax dañ koo soppi nangam sàngam lépp ngir yàq diine l'islam ngir yàq ndax xam nañ ne bu ñu indee sikki sàkk ci saxaaba yi rek sikki sàkkaloo nit ñi ci diine ji nga xam ne ci ñoom lañ ko jëlee mu nekk ay wax yu yàqute yu ñaaw yoo xam ne ba jamono ji am na ñu koy wax te ñu ngi si suñu réew mi nekk ci biir julit ñi problème yu bari yooy gis ñooy nekk ci suuf di ko xam waaye nangoo ñoo feeñ ndax ay nit lañ yoo xam ne waxewuñu xam-xam waxewuñu xel mu rafet doy na rek nit ñi dégg li ñuy wax pour xam ne lii du dëgg waaye duñ ko gaaral nit ñi dañ koy nëbb di wan nit ñi leneen lu bokkul ak li nga xam ne moom lañ gëm di nax nit ñi nag di naxaate ñëw nañ dem ci ahlu tasawuf mu tasawuf yu fay jaxasoog ñoom fi mu nekk nii ba gëm loo leen ne ñun ak yéen ñoo bokk liñ gëm ahlu sunna yi fi nekk ay wahabiyun lañ nañ dem xeex ak ñoom ay ndaw juk fim nek ay ndaw ñi ngi juk yo xamne ci mutasawwi fay lañ bok ci keuru tarixa yi lañ bok nek ci internet bi saga su bak ngon rafida yoy ñoo nek seen ginnaw di len manipuler ta xamuñu ko te te lépp xex bi yep ñom seen intérêt ñom rafida yi motax ñukoy def pa intérêt tarixa yi bis buñ demone ba am liñ bëgg Sénégal tarixa yi dañ génn abal len Sénégal waye nak malheureusement bu fekke yewuulo ben yewu bi ba pare da ngay wax ci l'islam chaque fois dañ lay nax dañ lay nax comme xale bu ndaw ngay nek di xabar xabar fek xamone nit mi ngi lay manipuler ahlu sunna yi nek Sénégal jege giñ jege tariha mutasawifa yi ci walu pass pass ak dine tariha mutasawifa yi jege wuñu nonu rafida yi ci dine dafa melne l'est ak l'ouest non lañ sorente mais bu fekke nit ki xamulo ko jangulo pass passam xamulo moy kan ñëw rek na la man may diw commencé de la ray rayal nga ne kon ki mom sama way la mën jëflanté ak mom fekk xamulo ni mi ngi la namal paaka bo xamni rendi la la bëgg kuttu la la bëgg ils sont très dangereux rafida yi yàlla nañ yàlla musal ci sen ay loolu mooy yoon woowu nga xamante ni mooy yoonu ahlu sunna muy yoon woo xam ne yoon wu yaatu la du ñàkk dinañ am beneen jataay insha allah indi lenn ci ay tuxal yi nga xam ne jëlee nañ ko ci mag ñu jiitu woon ñuy ñaax julit bi rawatina ci jamono joo xam yi réer la yi fitna la mu góorgóorlu dëgëral tànkam ci yoon woowu góorgóorlu xool yoon woowu nga xam ne yonent bi nekkoon na ci ak gaa yu baax yooyu mu sóobu ci yoon woowu يلن يون في سوس تكرر لي جمال نني وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله فتفرق بكم عن سبيله كم نكو يونت عليه الصلاه والسلام تفسير يالنا يالا ديفال ديغ اك يالنا يالا سام تي جيب فاصون رير ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن محمد رسول